gaynde daaru mu ngi noonu kooku gaynde daaru ci préparation mystique yi saan kirikoo ngi noonu kiriku nag koo xam mooy ku daan seetaan kii boobu séeri kiriku eboti laissez mon ami saan kiriku waay kirikoo ngi noonu waay kiriku bu jërëjëf bu buun ak gaynde daaru gaynde daaroo bi noonu daan kooku mooy gaynde daaru kooku mooy gaynde daaru gaynde da gaynde daaroo gi noonu ndeysaan xale bi moo def 4 combats 4 victoire xale bi moo def 4 combats 4 victoire kii mooy gaynde daaru ndeysaan at bi baa ngi wax ñoom li nangu at li bañ diggante gaynde daaru at kirigu gaynde daaru ak Kédougou saan gaynde daaru moo wan ginnaaw Kédougou lañ arbitre sifflé na Kédougou lañ jàkkaar lool cinquième combat de la gaynde arrière ñaari pas ñetti pas tàllal loxo bi di jot Kédougou ngi taxaw def gauche droite saan gaynde daaru ak Kédougou Kédougou dox na gaynde daaru dox na utali Kédougou Kédougou ak gaynde daaru ñaari xale yaa noon si géew gi kiriku at gaynde daaru taan kiriku at gaynde daaru kiriku at gaynde daaru ndeysaan kiriku at gaynde daaru taan saakuy fekkiwul kenn yéen a fekki saakuy taan gaynde daaru at kiriku gaynde daaru moo féetee suñu ndeyjoor kiriku moo féetee suñu càmmoñ kiriku jam na gaynde replier Kirikou da kaa jam gaynde da plié gaynde daaru at Kirikou da jam na Kirikou at plié moom tamit gaynde daaru at Kirikou ñaari xale yaa nañ ci géew gi ñu ngi leetoo jàpp song amagul Kirikou jël na ko gaynde bañ na Kirikou jël na ko gaynde bañ na Kirikou daan na ko Kirikou daan na gaynde daaru Kirikou daan na gaynde daaru किरकुट दाव नगर दारू किरकुट दाव नगर दारू